yéen mbokki jullit yi ñoo ngi leen di nuyu nuyóob lislaam nuyóob lislaam mooy assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu gannaaw loolu dafa am bis bu bis bu màgg bu jublu si muy bisub bi nga xam ne ci la sayduna rasul sallallahu alayhi wa sallam gane àdduna kenn si ki sàkkawul ci ne sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy ngën ji mbindeef moo gën ci ñi yàlla sàkk kon nag bis bi mu judd woon saw mu nekk bis bu am doole ci jullit ñi ci nit ñi ñëpp sax ndax dañ cee am gan gu màgg goo xam ne mosul cee am gan gu tol noonu loolu tax na ñu bari ci jullit ñi su ñëwee ñuy dajaloo ci jàkka yi ñenn ñi ci penc yi ci tànt yi di def lu ñuy tuddee gàmmu waaye tam teewul <clears throat> ab jullit lépp lu muy def da ko war a régler ci sunna sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax loolu la ko yàlla sant sama borom yàlla def noo sant nan topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne am ngeen royukaay bu rafet ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax boroom laxdari yu di wax ne du dagan ci mukallaf muy jëf jenn jëf ndara du dafa jëkk a xam lan la ca yàlla wax ndax yàlla da koo santaane te kon mu def am da koo tere te kon mu bàyyi am da koo daganal te kon bu ko neexee def bu ko neexee bàyyi suñ dee gàmmu nag lan mooy atteem ci sharia te bëgg koo seet rek ci bëtub maandu te ak honnêteté akub njub par parloo bañ caa am te wax ngir yàlla te yàlla tax laa wax dañuy wax ne gàmmu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam musu koo def xamu ko santaanewu ko it كان شي اي صحابان تا ليكو تابلي شي ساو بالاسلام مسيدنا ابو بكر رضي الله عنه باتي خلفاء الاربع جيخ سيدنا عمر عثمان علي با صحابي جيخ صحابي باغي يو نداوي با تابعين جيخ كان شي نيوم كو مسا غيس غام ولا nga xam ko amu ci musuñu gam kon nak kan munte ñak wax ne gam luñu dolli ci diine ji la te it yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon ne sunu mbir mi ku ci dolli lu ci bokkul def la koy delloo loolu itam li muy tegtale mooy li ma daa faral di wax ni diine lislaam dañ ko war a jàngaat bu baax jàng boo gisee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne mi ngi tàmbalee ci mbootu ba ci jaat may amul fu mu yem te itam amul ku mu wàcc te kenn du jàng ba bari xam-xam ba ne man léegi duutuma jàngati kenn du ne itam sa baay jàng na wala sa sëriñ jàng na li mu jàng doy na man aajuwul may jàng jàng mi ngi mel ne lekk ak naan lu sa baay lekk lekk lekk añ añ añ boo añul da xiif lu sa sëriñ añ añ añ boo añul da xiif lu mu naan naan soo naanul dangay mar kon boo sàkku xam-xam dafa war ñépp loolu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne sàkku xam-xam farata la ci jullit bu góor bu ne ak jullit bu jigéen bu ne diina ji buñ ko jàngee daanu seetlu ñaari yëf yoo xam ne benn bu ci nekk raglu na benn bi mooy daanu gis ne am na yu bare bare bare bare yu ci bokk nu sàgg ne ko duñu ko def fàtte nañu ko sax ndem mas nañ koo xam ñaar bu daal gis yu bare bare bare yu ci bokkul ñu di ko def boo kook nag di ko wutal ay lay ay lay yu saf sàpp boo xamee ne bii sax bëgg ngaa wax lu ca jëm kenn du seet ba xam yow li ngay wax ndax tegu na ci yoon wala te wuute dañ naan rek yow da ngaa kontar da ngaa lii da ngaa laa da laa te fekk mën naa am yow loola taxulaa jóg da ngaa doon rek ku bëgg a xam ak dëgg na ngaa doon rek koo xam ne ki da ngaa bëgg a teg sa tànk fa yonent bi tegoon tànkam sallallahu alayhi wa sallam ak ay saxaabaam diine ji pour xam lu ci bokk lu ci bokkut pour xam liñ ci war a def ak liñ ci wut a def benn marja la am benn marja la am diine kenn ci ami wax may borom asamaan ak suuf kenn la ci waxal mooy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax mënunoo am beneen marja bu wessu waxi yàlla ak waxi sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam pour xam lu bok ci diine ji ak lu ci bokul ittihad dina am ittihad amna moy mbir mo xamne dafa jek jek ne ma lépp feñ ci jamono te feñul won ci jamono yonent bi sallallahu alaihi wasallam sallam nu seet ba xam li حسب mokkal موكل تي احاديث تي ايات suñ منغلي méngalee ndax dañuy jàpp ne day war a dagan am day war a xaraam am dañ koy war a sopp loolu ijtihaad la wante loolu nag bokkut ak dolli bokkul ak wàññi dafa am ci diina ji yu bari yuñ ci wàññi te mu bokkoon ci te mën naa cee joxe xay na benn misaal walla ñaar rek ah boo dee ngénte sa doom yow may dégg am na lu ñuy wax taxniik taxniik yonent bi da ko daan def sallallahu alayhi wa sallam saxaaba yi di ko def kenn nekk ci ñun na déglu ba xam luy taxniik mu ñaata yoon la ko defal doomam mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu liir mu musaan juddu dañ ko daan fat bàyyi liir ba da koy fat kenn du woo bàjjan bàjjan du ko uuf de bàyyi liir bi moo koy fat lu ci gën a bari fekk yonent bi fa mu ne mu jox ko ko li ci gën a bari yonent bi da koy fab uuf ko bàyyi bi day indaale ay doomi tàndarma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fab ci ma jooje yey ko ba mu mokk yey ko ba mu def ay lor mu fat mu fat lor yooyee ca baaraamam bu tedd ba mu taqal ci lor yi daal koy dugal ci gémmiñu liir bi daal ko ci daal koy diw ca denq lañ ja loolu mooy taxniik taxniik jooju ñu bari ci ñun xamuñu am na ci ñun ñoo xam ne daanaka am nañ doom ba caat lu mus ñu koo def كمي سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لولو لو ما نجحل كي مثال كي فتة قنو فتة ولا سخ رير قنو رير يعني باري باري كي سنة ينتبه صلى الله عليه وسلم سودة جانك كي بخاري أكي مسلم لنجي جسي أحاديث يو خمنا dal da nga dan man jappon na ne yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ittem ak yermandem ak mbaxam ak lambe gu mu lambee dundu doomu aadama ak siwul woon fii ba ki dem rek laa ci nettali kenn ci sama waa kër fu yonent bi waxee sallallahu alayhi wa sallam ne bu ngeen dee tëdd na ngeen ubb ndab yi te ub bunt yi ndax seytaane du ubbi bunt bu ñu ubb te itam ba kenn fanaanoo aw safara ci biirum néegam fay leen safara si door a tëdd tey itam fay leen làmp bi bu ngeen di tëdd waaw fay leen làmp bi bu ngeen di tëdd yonent bi doo ko wax sallallahu alayhi wa sallam nee nañu ub ndab yi te takk mbuus yi nee na bu fekkee ne bii sax ndab li amaloo ko ube fabal ab bant nga gàll ko ca te wax bismillah bunt bi na ko ub ndax seytaane du ubbi bunt bu ñu ub yooyu yëpp miinan naa ko waaye nag fayal làmp bi yonent bi nee na booy tëdd nga fay sab làmp loolu sax yonent bi bàyyiwu ko sallallahu alayhi wa sallam ay sunnaam liñ ci réeral kenn xamul nu mu toll ba noppi nag ay bidaa liñ ci fent kenn xamul nu mu toll mbokk jullit yi kenn ku nekk ci ñun am na waru gar sàkk pexe bu mu mën a def ba jàngiwaat diine bi ba jàngiwaat lislaam te jànge ko ci sayidul wujud sallallahu alayhi wa sallam te xam ne moom la yàlla tànn yónni ko ci nit ñi ñépp moom mooy sëriñu sëriñ si mooy kilifa kilifa yi ñun ñépp ci gannaawam la nu ne yàlla moom la nu topp loo moom la joxoñ ne wa ma aataakum rasulu fa xuduuhu wa ma nahaakum anhu fantahu nee na lu leen yonent bi jox jël leen lu mu leen tere bàyyi leen kon ba gàmmoo noonu kenn du jàng wenn saaru alquran fekk ko ca kenn du jàng benn téere xadis fekk ko ca amul foo ko yonent bi mos a defe amul fu ko kenn ci saxaaba yi mos a defe yonent bi jóge na fi ba am téeméeri ak ñaar téeméeri ak kenn musta gàmm maa ñetti téeméeri ak yu toog luy tegal sax ki jëkk a gàmm door koo def te ni nga ko defee Espagne gi léegi nag loolu kon kenn ku ne ci nun mooy seet ba xam teewul borom xam-xam yi werante ci am na boroom xam-xam yu bari yone ginnaaw gàmm noonu la demee ñoom du ñu gàmm te du ñu fekk fu ñuy gàmmoo ndax loolu bidaa la te yonent bi dee na sallallahu alayhi wa sallam bidaa bu nekk cànkute la te cànkute borom ba daara jahannam moo tax ñoom d'accord ñu ci gàmm ñu ko def mukk te ñu ngi koy ñu ngi koy ñu koy xul rek yal na nu yàlla may tawfiq yal na nu yàlla may eh, eh, eh, tawfiq ak leeral nu sunu xol ak sunu xel ba nu mën a tënku ci su naam si lépp luñ ci juum yeneen ko jéggal lépp lu ci noona yal na ko nongu alaa kulli xaal bàmmeel moom ku fay dugg doo ànd sa baay doo ànd ak sa sëriñ doo ànd ak sa soxna nu doo ànd ak sa sa sa xarit bàmmeel moom yow dong ak la def dong te malaaka yi ñoom jëf ñaari xeeti jëf yi rek lañ xam jëf ji dëppoog ndigal borom asamaan ak suuf loola mooy jëf ju baax ja ak jëf moom mooy jëf ju bon ja ñoom xam ne wu ñu tiijaan ak murit ak ibaadu rahmaan ak falaax ak kii doomi sañ haadi yooyu xamuñu ko de ñoom li xam mooy kii ab jaam la boo xam ne daa jëf jëf yi nag ñaar dong la jëf ji dëppook ndigal borom asamaan ak suuf loola xéewal la yal na ko yàlla bari lal te fulal nu ko jëf ji wuuteeg moom loola fitna dong lay indi ak bàkkaar yal na ko yàlla jéggal allahuma salli ala sayidina muhammadin wa loolu xadiis woowu bi yonente bi alayhi salaatu wasalaam bisub moom ci bis boobu ci la juddu loolu addis bu wér la waaye kenn mënu cee tegtaloo nag ngir gàmm lu tax moo di yonente bi alayhi salaatu wasalaam woor la wax woor boobu yàlla fekkoon nit ñi di ko def bu dul woon bis bi mu juddoo it moom sax na ci sunna ne woor alxames ak altene kooku dañ koo yoonal sunna la kooru tatawoo kooru gu gàtt la bu baax a baax a baax la kon yowmal isnaini boobu defu ko par at moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jël na ko waaye altine bi ñëw jële rek kon su fekkoon ne ñi ci dañ koy jël mu nekk dalil kon gàmmo gi ay bis bi nekk kon da ngaa war a gàmmo su fekkee ko dalil altine bi ne kon kon da ngaa war a gàmm kon loolu defee su ko ginnaaw defee su ko loolu rek xamal ne kon dalil bi jëlewuñ ko ci xadis boobu la wane ñaareel bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy wax loolu xadis boobu ay saxaaba ñoo ko solo saxaaba yooyu dañ doon dund ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lan lañ ko appliqué woon woor yowmal isbayda rek lañ ko appliqué woon waaye yonente bi alayhi salatu wasalam bi mooy saxaaba yi dund ba taabiroon yi muy ndongo yi saxaaba yaroon dund ba jeex ñooñu ñooñu yaroon dund ba jeex kenn mënu laa saxal ci ab téere moo xam téere histoire la wala leneen bu la mën a tuddal ci ti maas yooyu koo xam ne diw sàngam dañ la naan daana def bu tooge ba fukki fan ak ñaar ci rabiul mu woo nit ñi ñu daje bokk daje di zikkar bokk di lekk bokk di naan ñuy tudde bis boobu bisu tiraangay yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wala ñu tudde ko gàmma wala ñu tudde ko tur wu leen mën a neex loolu amut ci ñeenti siècle yu jëkk bi ñu ñëwee ba ci juróomeel bi ay buur yoo xam ne ca Égypte lañ nekkoon ci dawla bu ñu tudd dawla al fatimiya te tur wa gën a wér mooy ad dawla al ubaydiya ñooñu lañ tudd woon doon ñoo xam ne ci kuréel boo xam ne al batiniya lañ leen di tudde ci lañ bokk nga xam ne ahlu sunna wal jamaa bi gëstoo seen biir gis na ne ay jullit sax la ëpp si ñoom doonuñu ko ñooñe ñoo am benn buur bu yaatu woon ci wàllu alal ci wàllu wërsëg misra dañoo dëkk ñu ñu wax ay aqbaat muy copt yi ñu gis ne dañ doon am gàmm bu ñuy defal isa buur boobu daal di xalaat ne ginnaaw ñii dañuy gàmmool seenub yonent wala dañuy fees ci ak juddoom kenn gënu moo yey loolu muy def bis bi mu jàpp ne mooy bésu jiddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam saa bu ñëwee mu dajale nitu ñi def ak ñoom ci bis boobu rendi ay nag togg ay ñam yu bokk lekk ko sama bis boobu ñoom mu teggee foofa jóge Égypte jaar Tunis jaar Maroc jaar tasaaroo ba agsi agsi ci sowwu tasaaroo ci mboolem mboolem monde islamique bi kon kooku doonut loo xam ne xadiis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko tegtale ndax ku ko tegtale woon saxaaba yi ñoo koy jëkk xam ndax yonent bi daawul wax rek bàyyi noonu te amoo sañoo seet xadiis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga jóg seet si ba noppi jëfandikoo nga ne nag damay jóg ba gis loo xam ne mën naa caa sukkandiku ma sukkandiku ngir dëgërale ko sama bi daa du du yoonu ahlu sunna wal jamaa ci wàllu bi ñoom buñ gisee xadiis dañuy xool xadiis bi lu mu wax aa arab ba noppi ah ñu xool xadis bi ci arab lan la wax mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee danaa woor bu altine ñëwee parce que bis boobu xamul bisu juddu la dénkaane yi tam nit ñi di woor alxames ak ajjuma sunnaal ko kon loolu lañ dégg ci xadis bi su fekkee ne dégg bi am na si sàkka lan la ñuy def mooy dellu ci ñu na ak yonente bi noonu lañ ko déggee woon suñ deltee si ñoom seeni déggin suñ xoolee gis ne am na kenn ci ñoom kat koo xam ne moom ni mu ko déggee mooy bis bi daf ko war a dàkk at mu nekk mu def ci loolu suñ ko amoon rek bunt dana daal di feeñ boo xam ne tudde ko bidaa xëy na du ñàkk lenn ci borom xam-xam yi ñu ko mën a def waaye nag du yaatu kon mën nañoo wax ne ña koy def dana am fu ñu sukkandiku waaye lu dul loolu rek sukkandikukaay du am kon xadis bi tegtalewul loolu هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى